nag mu am problème qui s'est posé ak les vendeurs les tabliers les marchands ambulants euh, différentes localités de Dakar parce que dafa mel ne euh, même même au delà gis nañ ko à ak feneen ak feneen le problème mu nekk héritage régime bi mais yàgg na fi euh, pour le cas présent jur na coow entre collectivités yi état ak les tabliers déjà yow problème bi ban ban jàngat nga ciy def. ma si am mooy masse les uns et les autres parce que xale yi ay jàmbaar neen damay wax toujours xale yi nga gàddu sa. sa ay gerte matu sax valeur dix mille nga nekk si naaj bi suba ba ngoon kooku tekki rek moo ko tax a jug. Mhm. état aussi autorités yu bees yi dafa naa ils ont la responsabilité d'aller de jël dëkk bi am fu ko yóbbu aussi donc ku nekk rek. Euh, am na loo bëgg ku nekk am na lu sa morom bàyyi mais je pense que il faut ndax def benn distinguo également. Mhm. ambulant yi dafa am tablier yi am euh, ñiy jël seen boutique. jël espace bu yaatu. yokk ko si cantine mm-hmm. benn cas la. mu am beneen cas bu am solo boo xam ne tamit mooy da ngay gis kenn tabax këram jël ay gravats soti si trottoir bi. du mm-hmm. ko fa jëlee yooyu yëpp ay ay xeetu encombrement la. Mm-hmm. mais lu si am solo mooy il faut ñu traiter ko euh, benn par benn dafa naa lu ëpp solo mooy aspect humain bi. parce que actuellement il y a énorme il y de jeune qui sont là. Mhm. Euh, qui non qui xam ne loolu rek nañu yaakaar loolu rek noonu am mais mu indil ma benn jàngat également expérience bu ma am toujours ah si wàllu gestion des foules gestion des marché mhm. euh, mooy yonenti euh, na yàlla xam nga daf nu sàkk. yàlla tey ñu ñëpp mënoon na doomu aadama yi ma bind yéen ñëpp nekk leen juli ñëpp nañu nekk mhm. jullit mais yàlla dafa yebal ay yonent yebal Seydina Mohamed ne ko damal waxtaan yi loolu c'est très important. Mm-hmm. parce que tey nit yi situation si taxaw wax nga ko et c'est c'est très pertinent dafa nekk lu ñu bay bayal ay ay ah ay ay responsabilité ñëpp mm-hmm. ni gis nii bay bayal di bay ba affaire bi tey indi benn loo xam ne dafa nekk kët ne jonn dis si c'est une bombe sociale en exactement danger bi mooy bis bu éclaté suñu kaw kenn du ci mucc man damay wax toujours ah, marchand ambulant bombe ambulante xam nga mm-hmm. bombe ambulante la donc il faut dafa jot fu nekk nii nu toog nu jéem a jëm xaw ma nan na nga ko mun wooyee assise et cetera xaw ma nu ko wooyee. mais mais avant avant loolu. waaw avant loolu cette volonté des autorités. Euh, de rétablir l'ordre elle est légitime cette volonté lu jaadu la xëy na yoon bi ñu ci jaaree moom moom moo baaxul. ba indi coow li tout à fait falaa da ñëw mm-hmm. autorités yi dañ leen di féliciter parce que loolu lu ñu bëri dañ ko bëgg et c'est une demande aussi parce que boo seetloo ñu dëkk ñi bëgg a jàll tout ça dañuy soxla yoon yoo xam ne mën mën nañ ci amal seen activité exactement man des fois damay toog su ma gisee kenn di dox stade bi du ma ko klaxonner parce que moom daful dara ndax mm-hmm. amul fu mu dox mm-hmm. mais na volonté état boobu dafa war a am benn lu mu àndal loo xam ne je pense que sax euh, autorités yi dinañ si jëm mooy diisoo Mhm. parce que aujourd'hui tey xalaat tey mi ngi toog nii si plateau bi di waxtaan si amoon keneen ku ànd ak man sama xalaat xalaatu keneen amul important xalaat bu yëpp dajale ku nekk joxe ci gis-gis parce que tablier yi bu leen xeeb am nañ seen gis-gis. c'est vrai marchand ambulant yi am nañ seen idée ñoom d'accord nañ ne lu ñuy def baaxul mais est-ce que suñu defoon ni du baax amuñu pexe la ñuy wax en fait amuñu mhm. pexe. Mhm. donc aujourd'hui tey suñu toogee waxtaan nu jël urbaniste yi jël aménagiste yi jël tablier yi mais. ñu bañ a def benn erreur wax ak véritable acteurs yi. parce que hmm. Sénégal suñu problème man dama ko daan wax toujours moo tax ba ma nekkee marché poisson dama daan bëgg di wàcc di toog si table yi ak jaaykatu jën yi. lu tax parce que ñoom ñooy. véritable acteurs yi xool seen i jafe-jafe seen i problème tey boo ma demee marché international dama daan lu ma daan gën a bégloo dem si tool yi waxtaan ak ñoom toog ak ñoom. si tool yi hmm. producteurs yi nga xam parce que. dafa am ay intermédiaires yoo xam ne ñoom ñooy dox toujours diggante acteurs yi ak état. Mhm. état wax ak ñooñu état indi ndimbal est-ce que dina egg est-ce que du egg est-ce que ñooñu am na intermédiaires yoo xam ne tey par exemple euh, secteur de la pêche am na ñoo xam ne ils sont des intermédiaires kilo yaboy li muy jar xamuñu ko. xamuñu ko donc loolu état bi si toogee ak véritable acteurs yi toog ak experts trouver solution.